Je féliciter bu baax nag Rufisquel sa présidente madame Fall ren ren septième édition muy organiser lii te lii nag lu am solo la ndaxte lépp loo xamante ni dañ koy def jëmale ko politique jëmale ko ci culture ak lépp lu mënti doon dafa am une dimension importante mooy xale yi les enfants loolu moo tax pour man lépp li ñuy def activité yi ñuy def ci at bi yépp lii bokk na ci activité bi nga xamante ni su ci ëppul solo bokk na ci li ci ëpp solo ndaxte bés la boo xamante ni dinañu xalaat xale yi bes la bo xamanteni dañu indil yi organiser len bes la bo xamanteni dañu bëggal xalé yi jox len ay cadeaux lolu nak madame Fall motax mané le la ngi lay féliciter di féliciter Rufisquel di wax nak ne su fekkente ni mom éducation xalé yi ngeen bëgg ak banéxu xalé yi lolu mom xam ne vous aurez vous mourrez toujours à vos côtés maa leen ci soutenir ndaxte lolu lu bax la ndaxte les enfants sont l'avenir de demain. dañu ànd ak madame Corel Fall muy jàppale ADAPEI nous mooy association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés xale yi handicapé yi euh, madame Corel Fall fekk ñu si suñu liggéey dina jàppale di jàppale xale yi bu tey mu feddali colère yi ne dafay jox ci suñu xale yi vingt xale yooyu lañ indi tey fii ñu ñëw ah kon madame Fall dañ koy di ko sant li mu def rafet na te damay bëgg lool ci liggéey bi muy dem ci biir Tëngéej li mu def ci biir Tëngéej rëy na ñëpp gis nañu ko di ñaan yàlla yàlla gën ko ko mënal parce dañ ne développement dina am donc madame Toren ce que vous faites là c'est pour le développement durable il faudra que la communauté puisse se comme un seul homme pour venir prendre part à vos activités risquées à vos activités risquées et nous souhaitons que ce soit vraiment sénégalais et sénégalais Euh, c'était plutôt une façon de célébrer l'enfance, de célébrer les enfants, les meilleurs élèves du département de Rufisque. Ensuite, les enfants nés et vivants avec un handicap. Et ensuite, parallèlement, mettre un sourire à tous les enfants, notamment du quartier Arafat. Nous avons fait tout le tour du département. voilà un peu en gros. Aujourd'hui, nous avons distribué 1106 cadeaux. Pour aujourd'hui, en dehors de la tournée qui a eu lieu dimanche, nous avons distribué aussi un lot de cadeaux.